يملا ما بين ارضه وسمائه والصلاه والسلام على افضل من صلى وصام المرسل من عند الله ليحلم الجن والانس توحيد الله وكيفية عبادته على السبيل الذي يحبه الله ويرضاه ورضي الله عن الصحابة الذين هجروا الأوتان يبتقون من الله الفضل والرضوان والأنصار الذين آووا ونصروا وبسلوا لإعزاز الدين ما جمحوا وما ادخروا وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام والأقوات المشاهدات في كل مكان أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبقيني سيطان تبير ريومي أكبتم ريو, gannaaw bi ñu musloo yàlla ci seytaane sant ko moom borom bi tabarak wa taala di cër bi yàlla moom ci jaam bi julli ci yonent bi aleyhi salaatu salaam di ndawam li mu yónni pour mu ñëw jàngal nit ak jinné kan moo di yàlla ak naka lañ koy jaamoo ci anam boo xam ne anam bu wér la yonent boobu ñu ngi ñaan yal nañu ko yàlla fayal fayal ñu saxaaba yi nga xam ne fa tabaarakallaahu Sen mbuggeel ci sen seen mbuggeel ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam, sen seen Islam, ci islam ak senu deggu tax na ñu ñu seeni kër bayyi seen alal bayyi lepp lañ am makka ànd ak wasallam. bi sallallahu alaihi wasallam dem Madina te dara topp leen ñu suur li ñu am Makka yépp jël yàlla ak ab yonentam mu gënal leen mboolem alal bu ñu am ca Makka ñooñu nga xam ne ñooy al muhaajiruun yal nañu leen yàlla fayal waaye yal nañu yàlla fayal al ansaar mu di siti sinu madinatul a yi ñoom ñi nga xam ne ñooy njaatige waa lansaar ñoom ñoo dalal ñi jógee màkkatal mukarama ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dalal leen rekk waaye ñu dem ba séddoog ñoom seen tool yi séddoog ñoom seen gaadin yi séddoog ñoom seen alal yi dem ba am yéene sax pour séddoog ñoom sen awi yi ak sen ñaarel yi walan sar yoyu yal nañu len yalla fayal waye yal yalla fay kep ko xamni yaangi tek sa tank ci yoonu njub di jëfee ndégtali alquranul karim di moytu ay tereem ñu ngi ñaan yàlla yal na la yàlla defal salaatu ak salaam foo mën a nekk ci goxu àdduna bi mbokk yi dellu waat nañ ci seen programme bi ngeen xamee diine ji diine ji nag dafay programme boo xam ne dafa làmboo dund doom aadama bi yépp ndax diine dafa ëmb doom aadama diine mosul bàyyi doom aadama fu doom adama mën a nekk rek diine mu ngi moom kon diine yemul ci julli ak oor rek génne asaka aj màkka waaye dundu doom aadama bi yépp fa tabaarakallaahu lépp diine la tey nag ñu fas yéene waxtani tombu bu am solo ta modi di important importance of Ramadan ta moy njëriñal koor mudi fawaidu sawm koor ak ay njëriñam mbokk yi weer wi ñu nekk di weeru koor weer la wu bari yiw weer wu bari ngëneel weer wu bari yërmande waaye weer wu bari njégal weer woo xam ne saxaaba yi daan nañ toog juróom benn weer ci at mi di ñaan yàlla pour yàlla may leen ñu fekkee weeru koor juróom benn weer dara du seen soxla lu dul ñaan yàlla pour yàlla may leen ñu fekkee weeru koor six months ñu ngi ñaan pour fekkee weeru koor buñ demee ba yàlla may leen ñu fekkee ko ba oor ko ba pare dinañ amaat beneen juróom benni weer ci kanam yoo xam ne juróom benni weer yooyu yépp dañuy tiit dañuy ragal lan lañuy tiit ak lan lañuy ragal dañuy tiit ne oor nañ weeru koor ba weeru koor jeex waaye ñu ngi tiit parce xamuñ ndax yàlla nangu na seen kooram ndiit allahu akbar dañuy or weeru koor ba weeru koor wi jeex ñu tiit teg ci juróom benn weer yoo xam ne ci tiitaange lañuy nekk mooy liggéey nañ liggéey bi ba pare waaye xamuñ ndax yàlla nangu na koom déet ñoom la yàlla di tagg ci alquran ni wallazina yu'tuuna ma ataw wa qulubuhum wajilla joxe ba pare teg ca nag di tiit di ragal di xelaat ndax li nga joxe yàlla nangu na koom déet li nga woor ndax yàlla nangu na kom ndéet saxaaba yi daan nañ am juróom benn weer di tiit di xelaat ndax lu baax liñ def yàlla nangul na leen ko ñu koy xelaat ñun nag tey ku def benn bu baax rekk ñu ne la waaw góor nga foog ne ndax yaa rey mbaam mi foog ne ndax sa sa aljana sotti na nga am yaakaar bu rëy waaye xoolal ñi génne ci daara yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yu'tuuna ma ataw wa qulubuhum wajila bu ñu defee ci yoonu yàlla ba pare dañuy tiit dañuy jaaxle teg ci parce que jëf nañ waaye xamuñ ndax yàlla nangu na comme déet moo tax ñooñu ñoom ñoo déggoon lan mooy koor ñoom ñoo xamoon njëriñal koor ndax ñoom buy wéeru koor daan ñëw su wéeru koor daan ñëw dañuy bëgg dañuy kontaan seen kanam yi di leer seen xol yi di bëgg waaye seen ruux yi ak seen bakkan yépp ànd di dund lu tax mooy mu ngi ñëw ramadaan a ngi weer wu bëri sëri ca baa ngi ñëw gan gu bari sëri ca baa ngi ñëw mooy tax dañuy kontaan di yàkkamti mu ñëw bu ñu ko ooree ba ñu ne weer wi feeñ na weeru koor wi dee na ramadaana ngi dem nga gis ndeysaan ñuy tiit di jooy seen ndéewa yi ak seen añ yi duñ xam lu mu leen di saf lu tax mooy seen xol yi neexut ndax ganu teraanga gaa ngi dem bu ramadaan di ñëw dañuy bëgg waaye bu leen ganee bay bay waaj pour ñibbi dañuy tiit seen xol yi naqari ñuy jooy di xelaat ndax li ñu liggéey yàlla nangul na leen comme ndéet muy benn ñaareel bi ñu ngi tiit di xelaat ndax ramadaan bi ñëw déwén dina leen fi fekk am déet ñuy xelaat ndax beneen ramadaan dina leen fekkaat ci àddunaam déet allahu akbar mbokk yi lu jara xelaata xelaat nga noonu kenn ku ne bu xelaatee seet li ko wër dinañ mën a konte nit ñu baax ñoo xam ne ndege ni daaw ñu ngi fa woon di woor ak ñun weeru koor tey koor mu ngi leen fekk ci biir bàmmeel koor leen fekk ci néeg bu xat boo xam ne amul amul benn njoboot bu la fay wéttale kon fa tabaarakallaahu ñun ñi fi yàlla bàyyi ñu fekkee ko foofu lañ war a njëkkee ak yàlla ci sant ko ci fekkee gi ñu yàlla baaxe bañ fekkee waat weeru koor mu mayaat ñu kàttan may ñu wér bañ bokk ci ñi koy oor loolu mooy sant yàlla gi war a njëkk ci suñ diggante ak yàlla والله નહીં સર moo tax yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam su ngeen xamoon li nekk ci weeru koor law taalamuuna maa fi ramadan ay maa fi ramadan min arrahmati wal maxfirati wal baraka su ngeen xamoon li leen yàlla dencal ci weeru koor ci yërmande ak li mu leen dencal ci xeetu njéggal nga xam ne yàlla daf ko bojet pour ramat pour ramadaanu ren bi su ngeen xamoon ñi yàlla programme pour fas yéene leen jéggal seeni bàkkaar fas yene pour gorel len ñu mucc ci safara su ngeen xamone programme bubu du ngeen bëgg ramadan mu yem ci ben wër da ngeen di bëgg at mi yépp yalla def ko mu nekk wëru koor ndax wëru koor bu ni ci yalla di fayé jambi. du ko fayee ci benn weer bu dul ramadaan bu ramadaan ñëwee yàlla day yokk loxoom bu doon fay benn dootul fayati benn pour fukk du fayati benn pour juróom ñaari téeméer moo tax mu ne su ngeen xamoon dëggi dëggi ramadaan du ngeen bëgg mu yem ci ci benn weer dangeen di bëgg at mi yépp yàlla defal leen ko mu nekk weeru koor ngir njëriñ bi ci nekk pour yéen ñu ne ko lu tax mu ne li xasanata anna alxasanata mudaafatun fiihi wa taatu maqbula wa sunubu maxfuura te loolu ci ramadan rek ngeen koy amee nee na weeru kor bu ñëwee lu baax lu nit def yàlla daf koy ful lu nit def ci xeetu jaamu yàlla topp yàlla lum tuuti tuuti yàlla du ko bàyyi dina la ko nangul bàkkaar yi la ramadaan fekkee woon yépp yàlla daf la koy baalal motax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam xutba na ci bis bi mujj ci weeru sha'ban yonent baa ngi wax ak nit ñi wax jo xamne wax ju bara wax ju jara bàyyi xel la يننت بانن ايها الناس ايها الناس انه اتاكم شهر مبارك شهر فيه ليله خير من الف شهر جعل الله صيامه وقيام ليله تطوعا فمن تقرب فيه بقسلة من الخير كان كمن أدى فريده ومن أدى فيه فريدة كان كمن أدى سبعين فريدة فيما سواه وهو شهر شهر صبر والصبر ثوابه الجنة وسهر المواصات وشهر يزداد فيه رزق المؤمن من فتر فيه سائما من فتر فيه سائما كان مغفرة لذنوبه وهتق رقبته من النار kama qaala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na ay nit ñi ku doon nelaw na nga yeew na ngeen yëg ni weeru koor ñëw na weer wu màgg ca yàlla weer wu barke weer woo xam ne am na benn guddi gu ci ne benn guddi googu moo gën junney weer yu laylatul qadri amut yàlla nag farataal na ngeen woor bëccëg yi guddi gi ngeen dundal ko ci ay naafe la dundal ko ci ay ndollent yonent bi ne na ngeen yëg ne weer wii ku ci def benn naafe la ñu bindal la ko tiyaaboy ku julli farata ku ci julli benn farata ñu bindal la ko yoolu ku julli juróom ñaar fukki farata allahu akbar ramadan bu ñëwee benn naafe la mooy taxaw taxawaayu farata boo ci jullee benn farata ñu bindal la tiyaabooy ku julli juróom ñaar fukki farata te yàlla nangul ko ko muy weer woo xam ne bu ñëwee wërsëgu wërsëgu jullit bi yàlla daf koy yokk waaye muy weeru dimbalante weer woo xam ne bu ñëwee fa tabaarakallaahu ñépp jot ci aso bi xiif bi ndax koor gi mettitu xiif bi ak mettitu mar bi ni ko miskin bi ak faqir bi di yëgee nun la ko buur bi di yëgee waaye nun la ko borom alal bi di yëgee moo tax koor nekk weer woo xam ne fa tabarakallahu dafay jàngale soli solidarité mu ne nag képp koo xam ne góor góorlu nga ba dogal ci nit ku woor nga may ko lum dogee loolu nga def yàlla dina la ko defal mu nekk njëggalu bàkkaar bu ñaareel bi dina la ko defal mu nekk gore ci safara bu ñetteel bi yàlla dina la bindal yool bu toll ni bi mu bindal kooku nga may lum dogee yàlla dina la bindal yool bu toll ni bi mu ko bindal ci kooram googu te du wàññi ci kooram gi dara mbokk yi seetal dogal dogal nit ku woor rekk li la ci yàlla may ci tiyaabo liñ ci gañe ci ay xeeti profit nit koo may mu dog yonent bi nee na may gin ko may mu dog weeru kooram ci la yàllay kontaan dëggaat ci loolu ba jéggal la ci mboolem bàkkaar yum la fekke woon goreel la ci safara ba pare bindal la yool bu toll ni bi mu bindal aji woor ji te du wàññi ci kooram dara am na nag koo xam ne buñ ne boo dogalee nit ku woor yàlla dina la bindal tiyaabu ju toll ni jim bindal aji woor jooju nga dogal te du wàññi ci koram dara ñu bari dañuy foog ne ndax yàlla day jël koram gi fayee la ko ngir li nga ko dogal su boobaa moom du dese dara déedéet gis nga pour nga dégg loolu seetal mobile bi nga amee netaal yi nekk ci biir mobile bi vidéo yi nekk ci biir mobile bi fa tabarakallahu sikar yi nekk ci biir mobile bi alquran bi nekk ci biir mobile bi li nga def ci sa biir mobile bi yépp denc ko fa bu ma jógee woon fële man ñëw soxla ko na la dama bëgg nga yónnee ma netaal yi nekk ci sa biir mobile bi yónnee ma vidéo yi ak jàng yi pour nga yónnee ma ko du jar ñu toj sa mobile bi ne dañuy génnee jàng yi walla vidéo yi di ma ko yónnee déedéet dafa am ay botin yooyu laal rekk su ko defee mboolem netaal yu nekkoon ci sa mobile bi ak vidéo yoo fi dencoon ak sikar ak jàng yoo fa dencoon lépp dinga ma ko mun a sen ci suma mobile bi te ñun ñi toog ci jotaay bi sax duñ yëg ni am na luy xew man nga ma transfert yépp sen ma ko ci diir bu gàtt te boo ma senee yépp ba pare boo ko seetaatee ci sa mobile bi dangay fekk ne dara jogut fa te man am naa yi ma soxla woon yépp nim nekkee ci yow nun la nekkee ci man ndegam tubaab yee man loolu ci àdduna rawatina yàlla moo tax ngay gis ku nekk ba Amerika nga nekk ba Gambia mu toog fi mu toog di la yónnee ay message te message yim la yónni ñu koppi ko ci sa fuun bi boo demee ci téléphone bi fekk ko fa netaalam bi nga soxla mu yónnee la ko bi mu la ko yónnee ba pare mu ngi waat ci téléphone bi dara wàññeeku fa yonent bi nee na ku dogloo nit ku woor yàlla dina la ko defal mu nekk njëggalu bàkkaar defal la ko mu nekk gore ci safara ba pare bindal la tiyaabu ju toll ni bim bindal kooku nga dogal kooram gi te du wàññi ci kooram gi dara mu teg ca ne wa man xafafa an mamlukihi axtaqahu llahu min annaar yenent bi ne képp kuy liggéeyloo nit nga jël ko di ko liggéeyloo moo xam da nga moom di ko fay par weer wala da koy fay bàyyi de par bis ngeen nangutoo muy xëy waxtu di wàcc waxtu weeru koor ñëw nga xam ne ñu ngi ci weeru koor nga yërëm kooku oyofalal ko liggéey liggéeyam bi su waroon a fóot lu bari nga wàññi fóot mi jox ko lu tuuti bu waree wàcc ñeenti waxtu nga ne ko bu ñaari waxtu jotee mën nga ñibbi lépp ngir yërëm ko ngir weeru ko yonent bi nee na sa sa liggéeykat boobu nga yërëm ba oyofalal ko liggéeyam bi loolu day na nga yëg ne yàlla dina la ko defal yooyu tamit mu nekk njot ca safara kon mbokk yi ramadaan léppam yiw la léppam yiw la mooy weer woo xam ne yonent bi nee na bu ñëwee guddi gu njëkk gi ci la yàlla di jox ooda malaaka yi bis bi njëkk ci weeru koor naam ci la yàlla di jox malaaka yi ndigal ne nañ ko ubbil juróom-ñetti bunti aljana yi isa kaana awalu laylatin min ramadan futihat abwaabul janna falam yuxlaq minha baabun su ko defé kon mbokk yi ñu ubbi juróom-ñaari arafi kër gi fa tabarakallah two three tu wantri pour ngeen mëna a bokk ak ñun inshallah taala ci darsu bi bi neena na de day ramadan guddi gu njëkk ci wéru koor yalla du xaar bër set ci guddi gi la yàlla di joxe jox ndigal malaaka yi na leen ubbil leen ma juróom-ñetti bunte aljana yi te bu leen ci tëjati benn ba keroog weeru koor wi di jeex malaaka yi dem ubbi juróom-ñetti bunte aljana yi yàlla jox ndigal malaaka yi nekk safara ne nañ tëj bunti safara yi buñ ci ubbeeti benn buntu ba keroog weeru koor wi di jeex malaaka safara yi ne ràpp bunti safara yi tëj ba tëj palanteer yàlla ne benn malaayka wooteel mu ne ko lu may wax mu ne ko waxal ak woy tabe yi waxal ak ñi daan def lu baax balaa weeru koor di ñëw malaaka bi daal di woote mu nga naan yaa baqiyal ak aqbil wa yaa baqiya ak sir wa lillahi hutaqaau min naar wa dalika kullu layla malaaka bi mu ngi wax ak ñi yàlla baaxal nga xam ni yàlla daf leen jox wërsëg ñu ci dimbale seeni mbokk di ci dimbale fuqaraaw yi ak masaakin di ci dimbale diine malaaka bi wax ak ñoom ñu jël Sidi Diallo forom sincu alaaji dellu si waat salaamualeykum Sidi waaleykum salaam bismillah Diallo yaa ustaas naam ay lu programme bi. jërëjëf jàll di ñaan yàlla yan nañ ko fekkee at yu bëree bëri. amin amin yaa rabbal alamin. yàlla nangul ñu suñu koor amin amin yaa rabbi. oustaz man dama bëggoon a laajte lan mooy faratay julli ak faratay njàpp. waaw. waaw loolu laa bëggoon a laajte farata julli ak faratay njàpp yi macha allah. waaw tabaarakallah dinañ ci ñëw yàlla daf na malaaka yi ubbi leen bunti aljana yi bu leen bu leen ci tëjati benn ba weeru kor wi jeex tëj leen bunti safara yi malaaka yi ubbi bunti aljana yi tëj bunti safara yi yàlla na leen des na ñu ne ko lu des mu ne utali leen ma iblis su ko defee malaaka yi dal di ut iblis dal di koy xànkof jëng ko dootuñ ko tekki ba keroog weeru koor di jeex fa tabarakallah yàlla nag ne na am malaaka bu wax ci turam ne képp ku daan def lu baax yokkal lu baax li nga daan def xam ne yaa ngi ci teretu weeru koor yaa ngi ci ciibu weeru koor waaye ku doon def lu bon baaxal baa nga wàññi mu ne nag guddi gu njëkk la yàlla di tàmbali guddi gune mu goreel lim bu takku ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa ñu waroon a dem safara yàlla goreel leen def leen ñu nekk nitu aljana ngir baaxaay weeru ko kon ramadaan léppam yiw la pour ñun mun ngeen bokk ci programme bi ci tuutiri two three fa tabarakallahu two one three mbokk mi laaj na fa tabarakallahu lu ama am solo faratay njàpp mbokk yi njàpp dafa am ay farata waaye am ay sunna farata njàpp yi nag buñ koy lim juróom-ñaari farata la ñu jël Abdoulaye Sekka forom Sarakunda del si wàcc farata njàpp yi salaamualeykum Abdallah waaw salaamaaleykum naka waa Sarakunda Sarakunda naka ngeen def waaw farataay farataay sangu laa bëgg laajte. farataay sangu set. waaw farataay sangu set ndox mu ko man ni ñu ko defee. maanaam sangu janaaba. waaw sangu jana. farataam waaw. baax na bismillah. faratay eh, njàpp juróom-ñaari Faratala. ñeneent yi alquran moo ko tudd ñeneenti farata yi nekk ci njàpp alquran moo ko tudd waaye ñett yi ci des sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko ci yokk moo tax mu nekk juróom-ñaar waaye ci alquran moom yàlla def ne yaa ayuha alladina amanu ida qumtum ila salaati faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsaxu bi ruusikum wa arjulikum ila alkaabayn mu jeex takk yàlla def ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla saay boo leen jógee jëm ci julli waxtu julli bu jotatee ngeen di waaj pour pour taxawal ko nangeen jàpp ñu ne ko niñ koy defee yàlla ne fax si lu wujuhakum raxas leen seen xar kanam wa aydiyakum ilal marafiq ngeen raxas seen loxo yi ba ci seen tikku nja seen seen cóonc yi waaye ngeen masaa seen bopp ragg seeni tànk ba ci seeni dojoor kon alquran sël la indi ragg loxo tàmbali ko ci tikku njarab bi ba ci cóoncu bi masaa bopp ak itamit ragg tànk ñeenti farata yooyu la alquran indi ñu jël sëriñ gasama forom Cochistown Fatima gasama Fatima bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam Fatima. yaa yaa oustaz ñu may nuyu di la ziar. fay naa la bu baax a baax a baax. di la ñaanal di sàkku ñaan ci yow. Mhm. programme bi rafetlu leen ko. jërëjëf. dafa am question moo doon laajte mooy. Mhm. dañ na weeri koor ba su jotee. Mhm. yàlla day tëj buntu sa safaray ibi yu aajana. léegi bu su jullit dee. Mhm. dafaa dem suweet àjjana. Mhm. wala yàlla da laa àttee. Mhm. balaa ngaa dem. waaw loolu laa doon laaj. tabaarakallah jërëjëf Fatima danañ ci ñëw kon faratay njàpp yi juróom-ñaar la alquran ñeent yooyu la ci tudd raxas kanam bi. ragg loxo li tàmbali ci tikku njara ba ci cóonc masaa bopp ak ragg tànk ñeent la alquran tudd yeneen ñett yi yenent bi moo ko ci yokk yenent bi moo ci yokk yéene muy intenson moo ci yokk li ñuy tudde ak dal ku muy ragg mu set moo ci yokk alfawru mooy nga gaaw ci njàpp mi bañ a time kon faratay njàpp buñ koy lim bi ci njëkk mooy yéene ci faratay la bokk raxas xar bi ci farata njàpp yi la bokk ragg loxo li tàmbalee ci tikku njara ba ci cóonc ci farata njàpp yi la bokk masa bopp te mooy dem bi tàmbalee fii dem ci gannaaw masaa dem boobu ci farata yi la bokk ragg tànk ba mu yegsi ci doojoor bi muy bëti tànk yi boobu tam ci faratay njàpp yi la bokk bi ko juróom benneel mooy ak dal ku mooy nga ragg mu set bi ko juróom ñaareel moo di alfawru mu di gaaw yooyu ñooy farata njàpp yi farata julli nag fa tabaarakallaahu moom tamit ni njàpp amee ay farata am ay sunna noonu la julli moom it amee ay farata bokk na ci farataay julli fa tabaarakallaahu moo di yéene gis nga yéene jaamu yàlla bu manqué rek yàlla du ko nangu ndax innamal a'maalu binniyaat ñu jël yaa ami Mouhamed jàllo from Latrikunda dellusiwaat ci farata farata julli salaamu aleykum yaa ami jërëjëf na nga am. oh Mouhamed Diallo. waaw yaa ngi ci jàmm. bisimilah. waaw dafa am lu ma doon laajte. bisimilah. mooy ne julli ajjuma. Hmm. lan moo waral ñu koy jàng ci kaw. Hmm. allo. ñu ngi lay déglu. waaw. Hmm. na ngeen def. waaw ñu ngi lay déglu. Mohamed ñu jéggalu ci dog-dog boobu kon farata julli yi bokk na ci lu ñuy tuddee yéene mënu ci ñàkk ñaareel bi mooy kàbbaaru xarmal mooy kàbbaar bu njëkk bi ngay njëkk a def pour dugg ci julli gi yëkkati sa ñaari loxo yi ba mu tollook sa ñaari nopp yi walla sa ñaari mbagg yi nga ne allahu akbar allahu akbar bu njëkk boobu moom it ci farata julli yi la bokk bu manqué ci julli gi rek julli gi du baax diir bi ngay taxaw noonu période bi ngay taxaw naan allahu akbar diir boobu tamit farata la ci julli jàng fatiha farata ci julli diir bi ngay taxaw pour jàng fatiha loolu tamit farata ci julli rukkoo bi ngay rukkoo sëgg téye sa oom yi bàyyi xel ne rukkoo boobu tamit farata ci julli naka noonu tam yëkkateku bi ngay yëkkateku bàyyi ko ci rukkoo bi loolu tamit fa tabaarakallaahu farata la ci julli naka noonu tam sujjóot teg sa jëbi ci suuf ak sa bakkan bi ak sa cër yi comme ni ko yonent bi waxee umirtu an asjuda ala sab'ati ahsumin yalla def ma digal bu may sujud na tek jurom ñaari cër ci suuf loolu moy sujud mbokk yi jurom ñaari cër yi moy ñaari ciati tanki ñaari omi moy ñent ñaari loxo yi muy juróom benn nga teg jëbi ci suuf muy juróom ñaar sujjóot boobu tam bàyyi ko xel farata la ci julli yëkkatiku bi nga yëkkatiku ñu jël mbokk mi ci line bi salaamaaleykum allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. yaa oustaz ñëw naa la. fay naa la bu baax. waaw ma ne tey man juma mu mu doon jullee juma. booy julli juma. ma fi ma doon jullee juma tey. waaw man fi ma doon jullee jumaa hello mbokk mi. waaw maa lay dégg ma ne. yow fi jule doon wala man fi ma don jullee man fi ma don jullee yow fi nga doon waaw waaw waaw eh, imam bi sax bismillah rabbika la doon jàng atta fi agali wu ko nak imam bi la ruko xaw ma nak imam bi sabbi bismillah rabbika moom la doon lan la don jang sabbi isma rabbika ah sabbi isma rabbikal a'la waaw waaw agali wu ko nak atta fi nak la ru ruko nak legi mu koy jang agut mu dog ko rukkoo foog la bëgg xam imam bi da doon jiite jang sabbi isma rabbikal jotu ta yegg mu dok sar wi ruko lolo ko jaxal mbok mi yàqul ci julli gi dara gis nga ràkka boo ci jàngee faatiha jàng ci benn aaya walla ñaari aaya alquran yëgal ne am nga julli kon bu neexee imam bi mu tari saar bi yépp dooraru ko su ko neexee mu jàng ci tuuti dog ko ru loolu dara newu ci bu ko neexee mu tibb fu ko neex ci saar wi jullee ko moo xam ci tàmbali suura bi la walla ci mujj suura bi bum ci def rekk yàqul ci julli gi dara beneen bokk laaj na liñ wax ne weeru kor bu ñëwee yàlla dafay ubbi juróom-ñetti bunti aljana yi tëj juróom ñaari bunti safara yi ñu jël ñu jël suñ laas ko la Mariama Ba from Fajikunda alaykum Mariama bismillah Mariam asalaamaaleykum wa alaykum salam Ba daraame da nga def ma ngi sant yalla naka ngon si jamu ba alhamdulillah Ba daraame di la bëggee rek jërëjëf fi la ëppee Ba

yal nañu yàlla boole tiyaabo bi ñun ñëpp tabaarakallah Mariam. waaw waaw di la rek di la di ñaanal yàlla may la fan ak yëg yaram. yal nañu ko yàlla boole defal ñun ñëpp. yàlla boole amin ya rabbal alamin amin. yàlla amin amin baax amin ya rabbal alamin. di la xamal ne ku la sopp la rek ku la sopp la. Mariam bala Pajisila. yal nañu yàlla bokk sopp ñun ñëpp soxna Mariam. waaw baax na jërëjëf jërëjëf mu ngoog kon fa tabaarakallaahu mbokk yi ñu ngi ñuy ne li ñu waxtu yi mayoon cëraleeg ñu ko ci jotaay bi jeex si na waaye daal nga déggee ci ne weeru koor moom bépp jullit bu ci faatu rek fa tabaarakallaahu yàlla def na la nga bokk ci ñooñ aljana képp ku ci faatu rekk gannaaw yaa ngi saxoon ci lislaam di topp santaane yàlla yi di moytu ay tereem ku ci génn àdduna ku ne say mbokk sañ nañ laa yaakaaral njëggalu yàlla ak dëkk aljana ndax nag dee ci weeru weeru koor dee ci bisu ajjuma fa tabaarakallaahu loolu bari paxe du ko maye bari wërsëg du du tax nga am ko liggey rek jaamu yalla rek mo koy may nit ak jagle sunu borom subhanahu wa taala kon yal nañ yalla may khatimatul husna yal nañ yalla may mujj gu rafet yal nañ yalla may saadatu daarayni kon mbokk yi fi lañ leen di taggo inshallah allah di sante mbokk yi nekkon ci walu technique bi ba liggéey bi mën a rafet yal na yàlla fayal ñu leen di wax rek ne in uridu illa al islaax mastataxtu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu bari dañuy